jërë ngeen jëf mbokku internet yi euh, safo di seetaan ak ci Actubuzz TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo euh, ñu daal di wax ci ñaari xew-xew yi nga xamante ne ni daal di nay am euh, fan yi muy ñaari xale yoo xamante ne ni dañoo reer seen ay waajur benn bi amee foofu ca Tëngéej beneen bi amee fii nga xam ne mooy Pikine bi nekk pikin nag xale bi atam mu ngi toll ci un an et moom nag dañu ko daal di sàccee foofu ca këru famille ga foofu ca Pikine ñu wax ne nag ki nga xam ne moo def jëf ju ñaaw jooju rek di benn ku kenn ku jigéen e, moom sax e, bi muy e, def ñaawteef boobu noonu banque bi nga xamante ni moo dend ak kër googu noonu caméra de surveillance ya jot na filmer scène ba ba nga xamante ni gis nañ ci vidéo bi xale bu jigéen boobu noonu bi muy jël xale bu jigéen bu ndaw bi di ko sàcc rek di ko dugal ca oto boobu noonu mu nekk mbir mu doy waar abu mhm. daal di euh, xewee euh, foofu ca Pikine mhm. jërë ngeen jëf mbokk internetu Actubuzz gis ngeen euh, li nga xamante ne li faa wax léegi li xew fi nga xamante ne mooy Pikine ak Tëngéej mais mun naa ne booba léegi kon ñu ngi wéyal li nga xamante ne mooy mbirum sàccum xale yi mhm. fi ne nii mbir mi man dafa ma commencé yéem parce que dafa mel ne que ni mais xale bu la warul sax mën a mën a génn kër gi te bàyyiwuñu ci xel bu baax baax ba nit ñëw di jël xale bi di ko yóbbu mais xaw ma benn nit ki mooy def loolu xaw ma jàpp ñu ko mm-hmm. mais en tout cas daal yëf yi muy commencé di bari di ëpp ëppi loxo chaque jour ñu ngi dégg moor chaque jour ñu ngi dégg moor ñu ngi dégg moor affaire bi fi ne nii nag commencé na ëppi loxo lool lool lool mm-hmm. ah, di wax état bi nañu xool mesures yi ñu ci jël ak façon taxawaay bi nga xamante war a def parce que mooy seen doom mm-hmm. di gën a xam xale yi ci lu ñuy nekk xale yi ci lu ñuy dox parce que léegi-léegi man ba may xëy si rek ci yoon bi rek maa ngi daje ay groupe xale yi ndaw yoo xamante ne ay trois ans 4 ans daw dina dañuy jéggi télé bi da après yow yaay de dàkke ak ñoom mais xale yi ñuy rendi daal nekk daal lu naqar ak tiis gu méttee méttee méttee méttee méttee métti moom lii daal rafetul daal waaw rafetul moom. Mhm, abu euh, kii nii doomam yi ñu koy ñaan mu daal di koy gis ci anam yi gën a rafetee waaye bi yoon ñu daal ci tudd ku jigéen parce que ñaawtee fii nag gis nañ ni euh, lu ci ëpp ay góor ñoo ko daan def waaye bu ñu demee ba léegi euh, jigéen ñi ñooy jël xale yi ndaw yi di leen sàcc dina doy waar parce que dina doon loo xamante nii doo ko foogee nax jigéen dañuy jàpp rek ne.

Euh, yërmande bi muy am ci xale ak euh, ak xolu njureel bi ñu bi nga xam ne. Mhm. Euh, dina koy am duñu yaakaar ne. Mhm. dina mën a def ñaawteef yooyu lan rek nga mën a xalaat ci jigéen ñi nga xam ne léegi ñooy amal enlèvement yi. dëgg la li nga wax léegi léegi lu solo la ci côté li nga xamante ne mooy àqu njureel dafa métti boo déggee sax dañ koy war ñaan yaay lu métti nga baal ma parce que jigéen dañ doon xaar ci moom ca ci yenn yërmande yi parce que ñoom tey boo xoolee diggante doom ak yaay dafa jege lool lool lool lool yow rek boo xooloon tey rek diggante ak sa yaay rek ñu taxal ko dafa metti mhm. tey da ngay imaginer rek sa yaay di dund wala yow doom bi nga nekk sa yaay dundatoo rek da xool diggante boobu rek euh, sa yaay stress bi muy àndal mhm. ak lu bare bare li muy àndal ji nga lu gën a bon ci àdduna ji nga nit ki bu xamee que ni carrément ah sama doom de dañ koo rey après sax boobaa stress bi dina gën a mën a wàññeeku mhm. mais xale bi mën nañ ko sàcc xamoo yan condition ci yan la nekk xamoo ci lan lay dox xamoo ci lu muy nekk loolu en fait tamit day mën na sax indi yaay ji mu xel parce que xalaat gu bari day indi waaw ak fi mu ne nii ak réew mi nu mu doy waar sa yaa ngi dégg ñu ngi ñu ngi rey xale mm. sa yaa ngi dégg ñu ngi rey xale man état bi dama xamagul boobu ak léegi ah, lan lay xaar ak ah, lan lay nëgë nii pour jël ay motoyaam ci li nga xamante ne mooy ci mbirum xale xale yi mm. man parce que fi mu ne nag jar na nag fi mu ne nii nag ñu wàccee nit ñi wala koñ bu ne gox bu ne fa nga dëkk xale boo gis mu ànd ak nit sax ah eh, war nañ war nañ ko mën a arrêté mm-hmm. ñu laaj ko ne ko ni kii calan la wala kii fu mu jëm ak et cetera affaire yooyu noonu mm-hmm. parce que loolu ñi nga xamante ne moo ne ci dëkkuwaay yi mm-hmm. ñu war a a jël motuwaay yooyu noonu tey fa bu ñu ko ñam tey bu gisee tey ko bu baax a baax identification bi amul fenn fu mu la jox si biir koñ bi mais da nga a laaj ne ko soxna moom mooy solution bi sinon daal yëf daal du fi gaaw a jóge daal waaw mbirum sàcc xale daal metti na lool daal si yow. mooy noonu Abou day na waar yàlla na ko yàlla daal di ñiit mm-hmm. keneen ki nga xam ne moo féetee foofu ci Tëngéej. Mm-hmm. moom dañ koy ñaanal yàlla daal koy xare àjjana mu àggalee ndawam foofu mu daal di jëm. Mm-hmm. parce que mbir moomu mu nga amoon dimanche ba la ñu génn. Euh, ki ko sàccoon nag daf ko yóbbu woon ci ay tabax. ba ko yóbboo foofu itam euh, ci noonu ay waajuram si lañ gëj amee ay nouvelles yoo xamante ni nekk na lu neex ndaxte dafa daal di mujjee ñàkk bakkanam moom xale di koy xaree àjjana. waaw ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla xaree àjjana àjjana firdawsi yi eh, yàlla yeggali tam fële sa mais nekk li nga xamante ne mooy rek ah lu méttee méttee la te et puis eh, mbir mi moom ba si jigéen ay jigéen dem ba di ci bokk fi mu ne nii nag ah, gën naa kéemtaane gën naa doy waar bu baax a baax xale yi ñu jël di dugal ci ay tabax di rey nekk na lu ñaaw lu fi nga xamante ne mooy réewum Sénégal war ñu di ko dégg sax ci réew mi fi mu ne nii yëf yi dama xamul ndax axir jamaan mooy ñëw wala que doomu yi ñoo antoog seen i mais lépp lu si nit daal nga di ko def alal boobu jàppal ne bis boo dee yowmal xiyaam suñu borom alal boobu lay boole lay def say mattu safar mooy mooy alal ji lay lakk yowmal xiyaam parce que nit ñi léegi jamono ji alal da naa jaral lu ne ci àdduna xam nga lu nekk jaral leen te fi mu ne nii bu dañuy seetlu saa bu côté élection yi jub see rek la la ñuy ëpp lu ñuy dégg li nga xamante ne ni mooy problème yi nii te problème yi nekkul lu dul ñi nga xamante ne tey defkat yu bon yi defkat dañ ciy profité tout le temps pour ñu ciy di tudd politiciens yeeg et cetera ñaan non politiciens yi te fekk na billaay wala politiciens yi taxewuñu laalewuñu jegewuñu mais nit ñu bon ñi ak féticheurs yi nga xamante ne yu bon yi sacrifice yi nga xamante ne ñu am ci réew mi ku nekk bëgg ngaa am oto bu rafet bëgg ngaa yor ci iPhone 11 yi bëgg ngaa dawal oto bëgg ngaa leneen ak leneen mais nit da nga war a mu jël ñaar dërëm di koy dundalee say waajur fekk dund bi nga leen di dundalee lu xaraam nga leen jox ñu lekk boo si jëndeem xarum tabaski xar moom amoom tabaski amoom dara yow ma la xiyaamati suñu borom xar mi porte plainte yàlla yàlla suñu borom mu xar moom doon dox sa diggante yàlla suñu borom ba safara sa fay parce que na nga moo baaxul nit lépp loo amee loo xamante ne baaxul si yow ma xiyaam bu yow ma xamee dina day doon sa tiisaange doon sa naqar doon li nga xamante ne lay sonal nit ñi nag fi mu ne nii wax mënutu si ñoom dara gumba nañu tëxla nañu fi mu ne nii mbirum àdduna rek lañ topp comme que mbirum àdduna lañ topp nag ah ñoo xam àdduna ngoog àdduna moom àdduna bi gu gudd gudd na gudd na trop trop trop trop trop xam nga li amoon jamono bani Israël ak yeneen ak yeneen yeneen xeet yi amul jamono ji ñu toll yaa maanaam léegi bàkkaar yi dafa suñu borom daf ñoo sori waaw ay jamono da nga xool ci jamono yonent yi nga xamante yu fi jaaroon ay yonent yàlla Ismaïl yonent yàlla Ibrahima ay yonent yàlla Moussa boobu suñu borom maanaam dafa jege woon askan bi ba nga xamante ne amul du leble dara da ngay def léegi léegi ñu wan la ko léegi mais fi mu ne nii maanaam naafiq yi cool yi bari na ba suñu borom fi mu ne daf ñoo sarifa loolu la amul lu ma wax. moo ngi noonu Abou ñu leen di jox rek dig daje ba beneen yoon.